asalaamaaleykum waa mbokk Mouslih bi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ñëwaat nañu tey fii ci Petersen di ñëw waxtaan ci circulation bi am ci dëkk bi yan problème lay causer ak dégâts yi mu def ak ñan ñooy responsable bi ak ban solution lañ ci mën a am nañ dem ci biir xool nuñ ko jàngatee. man embouteillage bi ngay dindi mooy Dakar du ñu sànni oto oto yu màgg ci lañu bari te oto yaa ngi ñëw ba tey. loolu tànk que rek lañ solution boobu rek oto yi am plus de cinquante ans yëpp ñu yóbbu leen fourrière sàkkal leen pexe quoi mais tant que rapide fi am ay quarante ans cinquante ans ñu ngi daw ak yenn oto yu màgget yi te oto bu ciy dawit visite technique bu baax ngay am te oto bu dem ba am ay cinquante ans sa visite technique mënatul baax quoi il faut ñu changer parc bi quoi franchement gaari oto yu baax màgget yi comme sa oto yi mën a daw quoi mais tant que oto yaa ngi ñëw di jóge bitim réew di ñëw te du ñu changer oto mukk benn oto du gaare embouteillage du fi jóg. léegi lan nga xalaat ne ñan ñooy responsabilité mbir mi. mais loolu d'une part état bi am na ci responsabilité nit ñi tamit sa oto day màggat doo ko changé di daw ak moom muy pan pané rek franchement oto bi tali bi day fees quoi état bi. gisoo ne ban solution lañ ci war a mun a andi pour affaire yi jafe-jafe. mu am du service ci visite technique yi quoi oto bu màggat loolu am visite technique mais da oto boo xam ne da lay wóor ni kii périmé na bu yàgg mais day daw te kenn du ci mën dara. franchement loolu moo dul yoon loolu moom tànk defuñu ko rek tar bi day xat